Cissé la euh, jiite communication bu commission Manko Wattu Ndoxum Xayra euh, ñu nag euh, dañu teew fii tey teewaay bi nga xamee ne teewaay bu am solo la ndax fu ñu nee xayra xam ne dafa nekk quartier bu mag te nekk quartier boo xamee ne dafa am dafa populaire li waral taxawaay bi nag mooy nañ ko doon defe rek lépp rek ngir taxawu xayra ci yëpp jafe-jafe yoo xamee ne daan am waaye jafe-jafe principal bi nga xamee ne am nañ ko euh, dafa jëm ci wàllum ndox yaakaar naa jiitinoo sunu juddu wala bi ñu doonee ay tuntaak ba léegi ñu ngi koy gis ba lu mat ñaari at si ginnaaw euh, ci la ñu commission bi nga xamee ne mooy manko wattu ndoxum xayra li ko waraloon mooy jafe-jafe ndox moo xamee ne dafa ëppoon doye lool waral nag ñu def ay commission dugg ci quartier yi Euh, ba dajale somme bu takkoo takku euh, amoon ay techniciens yi nga xamee ne wax na ni ñu problème mu réseau la ñu am ak problème mu pompe yàlla dogal ñu liggéey si réseau bi liggéey bu am solo bi ñu paree nag gis nañ ne amoon na effet waaye malgré dem nañ ba si biir mu amaat yeneen jafe-jafe yoo xamee ne dapaat nañu si biir bu dee si problème bu bi bi ñu amee problème bu def nañ demande pour jënd ji pompe mais avant ñuy pare walla avant muy agsi Euh, waa tubaa si kanam jënd nañ pompe ñëw monte ko fii nga xamee ne mooy forage bu xayra boobu ak léegi nag toll na si ñaari at yu teg si ñaari weer bi nga xamee ne tabaski bi mi ngi jub si am nañ jafe-jafe ndox moo xamee ne yëg nañ ko lool ba tax na techniciens yi nga xamee ne ñoom lañu dénk ndox mi fii ci Touba muy waa OFOR muy waa hydraulique muy waa Maawu raxma ñoom ñi nga xamee ne seen xam-xam dafa màcc jëm si ndox ñu wax nañu pompe bi nga xamee ne moo nekk si biir forage bi moo am ay jafe-jafe kon nag commission Manko Wattu Ndoxum Xayra yàlla dogaloo na ne pompe bi ñu jëndoon agsi woon na ba ñu recevé ko woon kon dafa mel ne lu mel nii lañ doon xaar waaye ñaanuñu woon mu gaaw kon nag bu yàlla dogalee jafe-jafe yooyu am ñu war a màndal waa xayra ñëpp gis nañ ne tey boo duggoon fii si mbedd yi ñu ngi takk ay charrette jigéen ñi dem di rooti ji ñi mën a yenu yenu ñi mën a jëndi dem jëndi ba tax na pompe boobu waatu waa maa u rahmat yi yittewoon ko pour ñu jëf ko fee si forage bi moo waral ñu woo mbooleem ñi nga xamee ne ñi ngi si biir xayra le chef de village sëñ Mbàkke jamono yi dafa génn waaye mbooleem délégué de quartier yi jot nañ leen donte ñëpp ñëwuñu waaye juróom-benn yi ñëw nañ notable yi nga xamee ne ñi ngi si quartier yi muy président association yi ak ñi nga xamee ne ay ay ay borom doole lañ di def te yàlla tax ñoom ñëpp jot nañ leen ba ñu ngi taxaw fii fas yéenee jël pomp bi nga xamee ne man koo watt ndoxum xayra jëndoon nañ ko ngir forage bi nga xamee ne moo nekk si xayra moom la ñu fas yéenee jël pomp boobu jébbal ko waa Maaw Rahmati ànd ak ñoom nag ba ñu matale liggéey bi ngir lii nga xamee ne mooy saafarawu ñu lii ñu am pour ba ko saafaraw ñu mën koo saafara muy nàkkum ndox mi kon nag. ñi ngi ànd ak waa commission bi yëpp ànd ak waa village bi yëpp ànd ak waa bureau bi yëpp ñu taxaw fii ngir fa yéenee jël pomp bi jébbal ko waa Maa u Rahmati defal ñu defal nañu ab décharge donte xam naa xat-xat yi ndax jamono bii ñuy wax ak yéen ñi ngi def CRD jëm si màggalu Touba moo waral ñu yónnee fii Serigne Pape mi nga xamee ne moo jiitee hydraulique fii si kii bi nekk technicien ci wàllum pompe yi moom moo ñëw jël si pompe bi ànd ak équipe kon bu ko defee ñi ngi wax waa senegal gi yëpp di wax waa Touba gi yëpp waaye di wax waa xayra di wax ne mànkoo wattu ndoxum xayra pompe bi nga xamee ne jëndoon nañ ko si une somme de million millions 800 mille fas yéene nañ koo jël tey jébbal ko waa maa rahmat ngir jafe-jafe ndoxum xayra ñu fas yéene ko mu jeex tàkk. man maam Góor Diop laa tudd di délégué de quartier xayra 2 maa ngi nuyu turu Serigne Djili Mbacké ak Serigne Cheikh ak Serigne Mbacké bi ngeen fi teewal. ak délégué quartier yi nga xam ne ñoo teew ci njiitu sañ Balamé ak ñoom ñi fi nekk ñëpp mënuñu lim ñëpp waaye ñoom ñëpp teew nañu comme ni ko sëñ ji li waxoon rek eh, noo ngi sant bu baax tamit yàlla jultu yoon sallallahu di sant yi tamit waa Maawu Rahmati ci njiitu sëñ Moussa di sant yi tamit kanam ndax itte yi bari na waaye nag fii lii lii lii mbir mi lii coow li mooy tiwoo moo fi amul du forage bi de tiwoo moo amul tiwoo la ñu amul ci biir quartier bi moo tax ndox mënut a mboolem li ko commencé ci marché xayra bi dugg kër sëñ Basiru wër wër foofu yëpp tiwooyu tiwooyu tiwooyu yu baax la ñu amul tiwooyu yu war a ma joxe ndox soo jegee noonu dem fii la ba sama kër man di ko rit tiwooyu baax fa ndox ndox fii nii man damay xeli ndox fii nii sa yow mi sax forage euh, paan na kon tiwoo la biir bi amut nañu dimbale ci ay tiwoo moo xam maa ci dimbale moo xam Touba Ca Kanam nañ dimbale ay tiwoo yu baax monte ko ci biir xayra suñu ko ci monte ndox ma am tiwoo moom lañ manqué lee loolu mooy problème li daal mooy li nga xam ne man moom laa ci gis te ñu moom lañ ci gis bu teewoon amoon rek doo am ndax fii ne kër sëñ Bass ma ma 160 mi ñu fa defoon boobu moo fa nekk ba léegi nii te ab at loolu attanatu ko attanu kër googu attanatu ko attanu quartier bi dañuy wut tuyoo bu mat ab ab ab bu mag boo xam day dugg ci biir xaayra ñëpp mën a am ndox lii rek mooy problème mu xaayra. kii Moulay Diop la euh, quartier xaayra 2 euh, jiite association ATL takku liggéey xaayra quartier xaayra 2 quartier la boo xam ne dootul quartier bu ndaw parce que ndawee ba nga xamante ne lu met neuf délégués de quartier ña nga fa kon donc loolu dëkk la. te dëkk bu nekk nag dafa aajowoo di am ndox ku dee xam na ni Touba ñu nekk euh, Maaru Rahmati ñoo fi nekk ak waa hydraulique waa effort ñu ngi def seen kap laykata liñ man waaye yàlla dogal na quartier bi di xayra moom am nañ jafe-jafe ndox yàgg na parce que ñun dañoo ñëw fekk ko fi loolu jafe-jafe boobu bi ñu demee ba nga xamante ni métti na ñu bañ a bàyyi ndox mi ak sëriñ bi wala waa hydraulique wala waa effort wala Maaru Rahmati muy diis si ñoom ñoom ñu takku def ay commission si délégué ndigal sëriñ Mbàkke yàlla dogal na nekk fi jili wax na ko waaye am ñu ko fi teewal kon mu doon loo xam ni bi ñu takkoo ba dajaloo waxtaan def ay commission yoo xam ne dañu doon récolter xaalis pour maanaam di ma dugg si ndox mi pour di ma ko saafara jafe-jafe bi waaye bi ñu ko defee tamit wax dëgg yàlla waa Xayra gépp takku nañ ci mànkoo ci lu ku nekk la nga am muy fukk muy million génne ko ko nga jox nga participer ko si te loolu taalibe bu nekk te nit ku nekk tamit loolu tamit war nga ko dem ndax sa devoir la ndax ndox mënut a ñàkk ci dëkkuwaay waaye mu mel ni booba léegi tamit wax dëgg yàlla na ko kilifa yi yëg ñu ni waa Xayra moom def nañ li leen war mooy biñ leen laajee nalal alal génne nañ ko joxe fi ñu ko war a fi ñu ko war a joxe ñi ko joxe jàpp nañ ñi def nañ fi ñu ko war a jàpp ko war a def waaye dafa mel ni ba tey tamit saafara bi fajuwul jàngoro ji fajuwul ba tey mën naan tey la tey la jàngoro ji gën a gën a metti kon na ko kilifa yëg ñu xam ni quartier xayri quartier xayra euh, xayra dafa yaatu parce que xayra 1 la ñu bàyyi xel ni dafa sori ba côté guy saw yépp ci xayra lañ bokk parce que 9 2 délégué de quartier bu ñu occupé benn dëkk loolu dëkk boobu doontul ndaw wax ji fu mu na fa àgg kilifa yi xam ni xayra am na jafe ndox suñ jonni tey ji dañuy manqué ndox lii suñ li problème bi lii maam góor wax ay tiwo ndax man sama kër du tëj tiwo bu mag laa fa indi màggal ci la ñu bari di root kon problème yi kii la ñu am léeg-léeg nit fekk ma fa naan dañoo dajale woon lii def lii def lii def laa te nangam amuñu ndox fay naa fi ni cinquante mille francs yi ma joxoon ngir ni ma bund ma delloo ko xaalisam ndax da cee participé woon pare sonal ma ma delloo ko xaalisam du ma tudd nag tur waaye bu déggee lii ak lii ñu def tey jii dana xam li woon gàcce la ndax ba ma ko joxee cinquante mille nit woon ba mu ñëw mu delloowaat ma cinquante mi ne ma dencal waaw kon nag ñoo ngi sant waa Xaayira gépp ndax jàpp nañ ci waaye buñ bàyyi nag nañ jàppaat